aar tey ñi ngi dalal ndaanaan koo xam ne tey kenn dootu ko présenté ti ci millier bi nga xam ne ci lay évoluer ñëw def ci marque ci empreinte am indi ci lu am solo mais aussi di orienter jeunes yi di leen di jàppale ci wàllu culture. ki ma dalal tey nag kooku mooy Ibrahima mbay Soppe Soppe na nga def. maa ngi lay ziar mon frère. Mbaye ak di la bu baax di ziar aussi ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan euh, télé bi. di am mbégte trop quoi. ça fait plaisir en tout cas jàkkaarloo ak yow. merci beaucoup Ibrahima may soppe mi ngi noonu ndaanaan la soppe xam naa yéen ñu ñuy seetaan xam ngeen ko bu baax a baax tey am na ñu may ne soppe bi fan la jóge bon loolu moo duggee rek émission bi yàqu. Euh. <laughs> te bu <laughs> te bëgguma yëg waaw mais mais waaw c'est un yàgg naa ko wax mais damay daf may yéegal chaque fois. Mm-hmm. en tout cas sama benn xarit moom moo ko daan woowee. Mhm. di ni man maay soppeem. ok mu ngi tuddoon Aïssatou Faye. ok bon yàlla def euh, mu naan Ibrahima mooy sama soppe ba mujj gi sama soppe la may woowee. Mhm. mujj gi waa classe bi yëpp soppe Aïssatou Faye. ok après soppe soppe soppe c'est parti comme ça kooku ñëw bokkoon classe depuis seconde bi ñu nekkee lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. ok te moom moom mu tuddee soppe. Mhm. di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. mu rëccu daal li mu doon li tey soppe gis nañ la nga yëngu ci wàllu théâtre ñu bëggoon a xam lan moo la dugal carrément ci wàllu théâtre mais théâtre man dangay faral di wax ni je suis arrivé au théâtre de façon accidentelle parce que man football moo gënoon nekk sama sama dada mais donc euh, benn jour laa jógee IASU ñu ñëw fekk ci école bi ndeke dañ doon def benn troupe scolaire mu ñëw fekk gars yi répété walaa ma jóge football ñëw yerlu pour wax la sax sama première réaction mooy waaye xoolal góor jigéen ñi quoi xoolal ñi waaye ñi ay góor jigéen lañ quoi <laughs> xam nga boo defee rek ñu ngi am lu ñuy collé si yow et tout quoi man maa leen njëkk a xas waaw njëkk xas quoi mais yàlla bu lay nattu waaw dafay doy waar quoi maa leen wax loolu ba pare mënu ma dem donc man daa bokkoon xanaa ci góor jigéen <laughs> ci ñu ma doon xas laa bokkoon donc ma bàyyi leen euh, ñuy job ma nekk di yëndu ba càgg affaire bi mel ni intéressé na ma ma dugg donc dem toog ci ginnaaw quoi et comme par hasard may xool répétition yi di xool je vois que metteur en bi mi ngi leen di expliquer ay affaire di expliquer mais fi ma toll nii ba si yàgg rek. jékki-jékki ma ni gaayen bi ma ni ko mais yow li ngay wax sànq ba tey ak kii buy joué dafa am kii daal benn genre décalage. ok cest li ngay expliquer yow moom mi ngi koy dund si biiti mais dund ko ci biir. ok bi ma waxee loolu à l'époque le gars s'est dit mais attends kii mu ne ma danga def théâtre ma ne ko non mu ne réflexion bi. ku def théâtre moo koy wax. ma ne ko non man mosuma def théâtre mu ne bëgg nga def ma ne ko jamais de ma vie non du ko def. ok mu ne ma kaay nga essayé ma ni ko non. Mhm. donc le gars après mu bàyyi ma xel mooy dundooy jigal. il était en compagnie de a Diarra Thioune ay ñoom Assane Mbaye ñoom ñëpp ay ñetti grand yu nice mal euh, je dis malheureusement parce que ñaar ñi bàyyi nañ nekkatuñ ci théâtre bi depuis très longtemps donc bi ma xoolee ba si ak benn moment daal xaw ma lan moom ban mouche moomu piqué rek mu ne ma mais kaay kaay nga essayé li nga wax ni kaay nga essayé mais je te dis que ne bi ma jógee ba teg sama tànk ci plateau bi boobu ba tey c'était en quatre-vingt-huit xaw ma quatre vingt boobu ci kitti booy la may def euh, primaire pour wax la boobu ba tey sama tànk mosul tegee ko ci plateau de théâtre gis na nañu aussi euh, am na loo xam ne ni mu ñëwee c'est naturel mm-hmm. mais am na loo ci yokk waaw non yokkuma ci dara dañ ma cee yokkal dañ la ci yokkal waa parce que théâtre du loo yokkal sa bopp mel ni da nga koo da nga koo wu képp koo xamante ni nee na la ci théâtre moo ci yokkal boppam jàppal ni talaam la yokk. talaam la yokk mais yokkul technique am. ok bi ma demee aussi ba terminal après le bac non dama dem jàngi ko. parce que boobu xam naa ni théâtre am na fu mu toll ci man euh, théâtre bi gis naa ci lu lu weesu sama njort. Mhm. parce que dépassé na woon na sama entendement. Mhm. may xool nit muy jouer théâtre rek ni yem ci loolu. Parce que j'ai eu la chance de, de côtoyer à l'époque des, des, professionnels du secteur. Mm -hmm. Donc, Mme Biram Diouf, je nu au passage. Mhm. Makodou Mbengue Feu, Mamor aussi, nous avons école. Donc, nous, may gis taxi yi ñu doon joué à l'époque l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane l'étrange destin de Wangrin mhm. Adja la militante du grâce mhm. hmm? ay ay ay le profet sans confession maanaam mu nekk ay œuvre yoo xamante ni mënoo ko jouer te te tubaab wala comprendre aussi dara c'est comme ça que j'ai commencé à asseoir quelque chose de très solide avec le théâtre ma làqatu nag dem école nationale des arts te ki ma yoroon théâtre yëgu ko mhm. donc dama dem rek def concours bi nii parce que sama gars yi ñoom ñoo ma si ginnaaw euh, ma dem def ko dafa toog rek professeur yi nag foofu woo ko ni ko mais félicitations ton gosse là mais kii fan la nekkoon quoi mu neen ban gosse ñu ne ko non Ibrahima jàll na voilà il a été premier quoi ci ci ci concours bi il n'en revenait pas mais c'était trop tard parce que boobu def naa ko ba pare. ok bi ma xamee nag mënatu ci dara ci dama ñaanal nag dama ne comme sóobu nga nag. assume assume mhm. bu yeex la mais métier bu am teraanga la. Mhm. métier bu am wóllare la. Mhm. loo ko jox dina la ko delloo. pour pourvu que tu sois patient. mais est-ce que nekkul ne li nga ko jox dina la ko delloo moo tax phénomène bi actuellement ñu gis ñëpp xale yi góor jigéen mag ak ndaw koo ci wax téléfilm mu jëm mais ñu bëgg a xam lan mooy différence téléfilm. dama lay wax dama lay expliquer benn fa xam nga ñoom lan moo tax koo ci wax dara tey affaire bi mu daw du ko gëmee parce que aboutissement la waaw aboutissement de quelque chose la mais am na ñoo xamante ni ba ñu juddoo ba tey ba nga xamee ba tey ñu ngi dundal théâtre léegi nag ñoom dañuy jékki-jékki rek gis benn diw wala benn diw mu arrivé benn niveau bi ñu jàpp ni ñoom dañu war a tëb tey arrivé foofu man bu ma la waxee fanaan naa ci ay frontières ndax théâtre doo ko gëm bu ma la waxee voyagé naa quatre jours de suite ci oto temps nawet muy taw diggante Dakar ba Lomé ba Azangon doo ko gëm muy taw ci oto muy taw di taw taw bu continuer ñuy traversé ay àll ay ñag ay montagnes yoo xamante ni bu oto bi tourné da ngay tudd yàlla fanaan ci ay mbedd ndax teer teer sar yi tey jii man damay jàpp ne que lu mu ñu terale ñun teral nañ ko lu ni raw. mais mais bu yéen ñi nga xam ne tarbiyu ngeen. Mhm. dem école nationale des arts jàng ko est-ce que yen waroo leen jiitu pour ñu def assainissement bi. mënuñu si dara loolu lu daan laa lay wax. mais lu tax mënuñu si dara yow yoroo ngi nekk sa unité sonore. Mhm. te boo demee am mhm. yàlla may na xel pour nga bind benn affaire. te mën nga jouer ñoo xamante ne doo leen fay te xam-xam ak xel kenn moomu ko mën nga ko bind yàlla def ci wërsëg dëgg la non mu jàll ci internet bi gars yi ñi ko joué d'un seul ko ñooy gën a siiw Ibrahima Mbaye Sopé mi nga ne def na ci ay weer ay at bu fekkoon ñu ñoo moom caméra yi ci àdduna bi yëpp moom monteur yi ci àdduna bi yëpp nangam mën nañ ko def on peut le faire mais actuellement ku nekk yaay sa ku nekk borom day gis nit ci journalisme beeg leneen ak leneen mu jàng ci def ci ay at nit ñëw ci benn fan wala ci ñaari fan yàlla ubbil ko ci bunt samay dégg xam nga fi ñu toll nii il faut oser le dire mooy système mu théâtre bi léegi business la business non dootul ay yeneen logique yi nii nang non non non gars yi business lañ ko def te business boobu dafa am lu muy àndal yaa ngi wax léegi boo yéene ay xale yu jigéen ñu rafet wala nangam wala nangam parce que simplement dans dans leur tête ils se disent bu xale bu jigéen bi ñaawee kenn du ko seeraan mm-hmm. te ñun muy man muy yow bu xale bi tooyee ni nekk ci télé bi nga apprécier naan yee eh xale bi dafa tooy de et cetera et cetera woo sa benn copain kaay ñëw gee gaañ ñu commencé nag fu film bi war a dawee ñun ñëpp ñu dajaloo booy xale bi lim ma jar la non numéro am et ça commence comme ça donc xale boobu nag boo commencé dégg wala producteur bi dégg ko xale boobu day yokk rôle yokk ay affaire am commencé utal ay pub commencé mu taxaw asseoir benn affair loolu yëpp ci marketing la te malheureusement du si théâtre yi kese mais même les journalistes mm-hmm. da ngay gis ñiy présenter bon je n'ai rien contre la la euh, la femme claire au contraire <laughs> au contraire je dis bien mais gars yi dañuy def benn choix boo xamante ni comme si la beauté noire elle n'est pas belle et la beauté c'est une beauté que tu sois noir mince gosse wala leneen tu es belle c'est tout est-ce que may dégg léegi nag production yooyu nag ñoo taxaw installé wu mënuma taxaw man mi ni parce que jaar naa école man nag ma war a mënuma taxaw ni tey jii am na lu ma jàng si théâtre ba mu mokkal ko man rek maa war a jouer théâtre surtout que sànq ba tey maa ngi wax théâtre parce que jargon bu la ñëpp di wax mais bu ma waxoon pratiquement théâtre en tant que tel du ñu wax ci li ñuy wax ni parce que le théâtre bu ñu ko waxee c'est une activité qui se passe sur scène devant un public loolu mooy théâtre mais li ñuy def nii téléfilm yi ak série yëpp en fait ay captation yu demee noonu parce que ay série la caméra ngay utiliser ak son théâtre amul loolu théâtre lii la tout est naturel man la may joué sur un plateau devant un public qui me regarde man pour la petite anecdote gis naa fi wala boog dégg naa fi sax yàggul en deux jours ci benn ITV ñu cité benn kilifa bi muy def production dafa dem tapé ci benn film bu xaw a am doole gars yi jox ko ay millions mu dem def séréem mais pourtant c'était la première fois muy def série est-ce que dañ ko def parce que kii dafa miin série non boobu fekk na waa Daaray Kocc ñu ngi toog waa jamono tey ñu ngi toog waa waa jànqeen ñu ngi toog beneen troupe ak beneen troupe bu fi def ay dizaine d'années ñu ngi toog teen jox leen xaalis boobu donc affaire bi des fois ay ay ay kii la ay xarit xew xaritoo la yaa ma neex yaa ma neex la ay connaissance la ay euh, porte ay kii la quoi am carnet d'adresse bu baax ci hmm? tapes à la bonne porte et on te donne mais tey bu fekkee ministère de la culture mi ngi fi moom nekkal fi ñëpp donc culture lañu wax hmm. te man dégg naa ñu ne soppeem actuellement am na lu mu ci représenté ci ministère de la culture. Mhm. yaa ngi ci biir ministère bi ci liñ ma wax mais euh, bu fekkee ne soppe tey mi ngi foofu te ñëpp xam nañ ne soppe. Mhm. nangul nañ la ko am na lu la ci yàlla may jàng nga xam-xam baa ngi fi ba ci wiiri wiiri gis nañ bi nga ci duggee am na benn tournir am na loo ci apporté. Mhm. ci sorol nga mën ko loolu macha allah. mais mais mais tey rôle boobu nga xam ne am nga ko ak li la ci yàlla may ak nga jege ministère de la pourquoi defoo cri du cœur boobu aussi. waaw loolu mooy souvent euh, sénégalais ci ay information man je n'ai jamais été au ministère de la culture. ah bon information mooy doy noo xam non xaar xaar xaar parce que ne parce que gis nañ soppe dool na fi 4 4 ñu ne ministère de la culture état bi ñoo ko ñoo ko jox. soppee ngi dem ay voyage di représenter wàllu culture ak yooyu ak yooyu. Mmh. man buñ ko waxee xam nga tax ñu invité la du hasard. mais parfois nag yow mi toog. Mmh. ne tel foofu la bëgg jëm ak yow man li tax mosuma nekk ministère de la culture mooy euh, durant les six années passées ma représenté tous les artistes sénégalais au CNRA. c'est le conseil national de régulation de l'audiovisuel. maa fa représenté woon artistes yi xaw ma woon boobu moment boobu ministère de la culture amuñu benn benn link sax far parce que ki ma yóbbu woon foofu proposé ma c'est mooy monsieur Babacar Touré. maa ngi profité du occasion bi pour remercier ko bu baax a baax a baax a baax. journaliste bi moom bi moom Sud FM. moo nekkoon directeur ba. moo ko nekk ba tey. moom ma yóbbu ñu proposé ma man ak sept autres man ak huit autres personnes ñuy neuf. Donc, il y a un décret qui a été signé par le président de la République directement, qui m'a nommé. ku nekk ak li ngay représenté man ma dem fa représenter les artistes c'est tout man je n'ai jamais été mandataire du ministère de la culture samay voyage je l'ai fait en tant que comédien professionnel qui travaille avec un secteur professionnel avec des metteurs en scène étrangers la preuve pour la la petite anecdote sama festival de théâtre bi passé bi ñu ma joxee pour accompagnement parce que am na ñu may jiñ ñi dama jige trop waa ministère comme ni ñu ko xalaatee nii quoi ils m'ont donné que cinq cent mille j'ai failli les rembourser ça dama leen naroon delloo affaire bi non je te dis dama leen ko cinq cent mille léegi nag les gens pensent alors que ñoom ci Fopica ak yeneen son ñu ngi jox ñeneen xaalis bu bare bëri dama dem Paris benn réunion à la francophonie ci euh, des des compagnies de théâtre qui bénéficiaient d'un soutien mhm. ma dem euh, on devait proposer un projet tous les projets ont été financés, Parce que, bien paré, on nous a amené un directeur de banque qui devait connaître ce projet, nous avec toi, Le gars, il m'a parlé, Ibrahim, ton projet là, il n'est pas bien. il n'est pas bien. Il m'a non, c'est ambitieux, mal, c'est humain, humainement parlant, c'est extraordinaire, mais il n'est pas bon pour toi. Je tu n'es ni le ministère de la Culture, ni l'École nationale des arts. donc bu ñu demee ba may wax loolu c'est parce que man ci suuf maa ngi liggéeyal loo xamante ni ministère de la culture moo ko waroon liggéey parce que maa ngi formé ay xale. waaw te projet boobu ma yóbbuwoon foofu c'était pour la formation dans toutes les régions du Sénégal chaque un mois ma dem benn région formé fa vingt xale génnee dix yi formé leen benn troupe. mois bi si topp ñu dem joué ko tout tout autour du Sénégal ma demaat feneen defaat loolu ba région yëpp jeex ma prendre léegi chaque région benn pour dajale benn troupe bi ma paree dañu ma lii waa ministère ñoo ko war a def. moo tax financé wuñ ko. mais attends yow kon man la. waa ministère man maa leen di liggéeyal man maa leen di yóbbu la culture moom ma sa lekk. je le dis haut et fort que télé laa nekk. mais bu fekkee. beneen mooy waaw boo dee kat kat ñu ne kii euh, voilà ministère moo ko jox wala diw. ministère musuma may dara musuma may xaalis. Mhm. il m'accompagne dans mes projets culturels. parce que loolu bu ñu ko defee lu war la ñu liggéeyal di liggéeyal askan bi. di liggéey pour terre mais bu ñu foog ne après gis nañu ma dawal ko ñu foog ni waaye ministère ñoo ma ko jox ministère mosuma jox oto na leer mës naa toog ak Serigne Modou Bousso Leye parce que tere laay waxee maanaam li ma wax nii ay dañ koy teg après fu nekk seetaan ko je suis quitte avec ma conscience dafa ma recevoir biiram loolu yàgg na sëñ Modou Bousso Leye. mu nekk ci jamono Ablaye Wade la. jamonoy Ablaye Wade ñu toog biiram man ak moom ak yàlla kese. soppee ñu waxtaan mu ne ma xam lu mu bëgg man ko ah mu ne ma man maa am ci yow yëg-yëg parce que man ngay xool maa ngi gis li ngay def te man j'ai envie de faire quelque chose pour yow personnellement mu ne ma nag loo gaaw doyul parce que man fii euh, conseil des ministres bi di ñëw sax mën naa wàcc ci nguur gi laa nekk waxal li nga bëgg ma def ko ma ne ko mu ne ma réfléchir après nga woo ma ne ko du ma réfléchir je l'ai en tête mhm. mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko je suis presque sel ci domaine bi ma nekk di encadrer ay xale parce que école nationale des arts pour la petite histoire dafa fermé woon la section art dramatique kenn formé tul woon comédien ah non man maa doon jël suma maa main xool di dem ba Mboro Saint-Louis Diourbel les les les les photos sont là les images sont là dem di leen former ma ni ko dama bëggoon benn affaire mu ne ma ko xale yi ma leen di former saa su nekk. te saako boo ciy tibb di joxe di tibb di joxe day dem ba benn moment saako bi day jeex dama bëggoon juste une bourse pour dem extérieur yokk sama xam-xam pour gën a former xale yi. ma ko waxee loolu dafa taxaw di ma xool il est resté trente mën mun ma soppee nit ku baax nga ñu bëri fii bu ñu gisante waxi xaalis lañ may wax waxi nang man ko noonu man nañ ma ja nañ ma dolli xam-xam bu may ja ma partagé ak sama rakk yi parce que loolu laa am mën naa ko joxe. ok sa digganteeg soleil levant. ay lañu su may waay lañu. parce que je pense que bi ñuy xamante man ak ñoom boobu ñoom génnaguñ télé ah defaguñu pièce de théâtre à la télé parce que ñoom ils ont commencé par euh, par def ay pièces sur scène ñu mës leen invité yàgg na pour ñu ñëw Dakar jouer ci ci festival boobu ñu organisé woon ci la ñu gën a miinante euh, may dem nañte lu bëree bëri ak Ablaye sew euh, ñoom Paco au début ñu ngaa gënul miin c'est fur et à mesure que sama euh, diggante ak ñoom renforcé wu surtout Sanex euh, après benn moment bi maamam gaañoo et je savais que maam ji jige woon na ko trop trop mhm. ma dem fa ñu gën a waxtaan gën a xamal ci lañ commencé di demlante nag man ak ñoom. après on est devenu vraiment de de de grands amis. donc loolu la sama diggante ak ñoom muy ànd bu yàgg aussi. donc voilà c'est ça. gis nañu gis nañ la aussi ci seen benn euh, projet bu bees aussi. Mhm. waaw waaw waaw mooy lees waxul bi. lees je pense que ànd bu rafet moom moo indi loolu tourné naa ak ñoom ci ci ci wiiri wiiri yàlla dogal euh, mu nekk produit bu nice boo xamante ni euh, quoi qu'on puisse dire def na son petit bonhomme de chemin bon bi projet bi taxawaatee aussi bon Cheikh Ndiaye m'a appelé voilà je lui dis j'apporte ma contribution parce que aussi théâtre mooy sama liggéey théâtre mooy sama liggéey donc ñoom woo nañ ma ñu waxtaan yow fi ñu daje nii man ak yow balaa ñuy toog fii xam nga nu mu demee donc loolu moom leneen lañ ma woowee woon te loolu aussi buñ d'accordoon ci man ak ñi ma woo woon dama koy def je suis un comédien professionnel qui doit travailler buñ ko woowee fay ko dafay liggéey. message bi nga mën a lancer sénégalais yeeg askan weeg ak ci wàllu milieu beeg yëpp. mooy ku nekk ci li muy def mu gën ci góorgóorlu am ci fulla ak fayda te yàlla mu musal ñu surtout ci seytaane parce que dafay yàq. nit nag des fois mën na nekk ci yoon moo xamante ni dafa yomb trop oyof trop mais conséquences ya mu nar a indi luy diis lay doon moo tax Sénégalais il doit faire attention sur beaucoup de choses bi ci des mooy théâtre bi nga xamante ni nag ak art bi nga xamante ni ñun moom la ñuy dund man bu ma sañoon te loolu waxoon naa ko ay at a ngi jamais cru à ñuy wax l'art ne nourrit pas son homme pour man. dañu war a demander kan mooy l'homme de l'art ku ñu ren non man taat mosuma dund la est-ce que tu es un homme de l'art e toll nañ jamono yoo xamante ni contrairement à ce qui se passe il y des années ci vois maintenant des des des comédiens des artistes mais uute na ak ña nga daan xool démb di leen yërëm mm-hmm. gars yi koo ci xool tey am nga ci moom respect mm-hmm. koo ci fekk këram macha allah mi ngi sant yàlla te loolu. foofu la ñu war a toll actuellement. donc ñu lay laaj sa dernier mot. waa di leen bëggee rek di ñaan aussi bu fekkee wax ji am na lu ci ñuul wala lu ci ñaaw ñu ko jégal waaw xel moom mooy fattu bu àndeek ak aussi ñu jégal ñu parce que théâtre fi ñu ko teg la ak fi ñu yóbbu la te bëgg nañ yàlla seede na ko si quelques années képp ku koy def nga gis sa bopp parce que métier bu noble la métier bu noble la merci beaucoup. chers amis téléspectateurs théâtre métier bu noble la Ibrahima Mbaye de son vrai nom prochainement ñu dalal keneen ci seen émission Vox waxtaan waxtaanee leneen ngir lu jëmale Sénégal kanam ngir Sénégal doon gën gi réew merci.